tembe the house settler. Jambo Paila. yes noonu lay demee saa su ne émission bi xam ngeen ni muy demee taxaw seetlu la. yaa naa def. maa ngi fi Moussa. maa ngi am jàmm. sant yàlla bu baax a tranquille. waaw sant yàlla bu baax. yàlla de. ah gis nga. dama ko simple rek. xam nga dafa dama dugg ci nga def gis nga de.

ñooy delloo ziar. ça va sant yàlla. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. macha allah ça c'est mon ami DJ. moom moom daanaan la moom ay ni nga yee. may quoi maa ngi ziar. waaw maa naka yite yi. waaw sant alhamdulilah. maa fi jàmm. waaw ñu ngi a dama gis ne da ngeen a xaw a triste quoi xaw a nooy nooyal affaire bi mais bi du yomb de. Ah, thème bi lenn la ndeysaan comme ni ñu koy defee tey bi dafa nar a mooy jëkkër dañ koy mat wala dañ koy mën coow li bëri yéen ngeen nekk ay jeunes malgré marié wu comme que da ngeen di waaj a jëm ci li nga xam ne moom mooy arène bi souvent moo taj leen ñu toog waxtaane loolu. lan ci des non maa ngi wax sa yow mosoon na am jëkkër fi ñu paree sa njàngat bu njëkk balaa muy poser xale yi jëkkër dañ ko war a mat dañ ko war a mën jëkkër da nga koy mat. jëleen bi ñëw da koy mat dëgg. eh dëggantaan. waaw lu mat bi. waaw jëkkër maanaam mooy lépp. mooy lépp waaw. Hmm. jëkkër boo déggee da nga koy mat. Hmm. mën nga da nga yërëm sa jëkk sa hmm. ci moom loolu mooy loolu rek mooy lépp. koy mat mais da koy mën aussi. da koy mat mais da koy mën. waaw nee moom da koy mat kii yàlla yow mi nga xam ne macha allah yaa ngi préparé di fas yéene dugg ci làng gi am jëkkër xamoo ndax mat la wala benda. la yow boo sañoon ci ñaar yooyu da ngay dégg gaa yi wax ban moo ci gënal ñaar ah man de bu ma sañoon man may am borom kër naka mun naka mat la ci dem ba mu jeex parce que ma duggee damay gis sama yaay di te loolu laa bëgg a doon waaw kon moom da nga mat da ko war a mën ba mu jeex loolu du yomb de ah du yomb sama jigéen moom ba Fassal. Diagne Diagne Fassal Diagne. noo gisee li gars yi ci dëkk bi dañ koy mat dañ koy mën nga jàpp ne yow ban la ci. waaw su ñu nee dañ koy mat. on sous-entend l'âge. te mariage moom appul âge. appul âge waaw ah. dinañ ko mën nag. Ah. mais ah. su fekkee wax nañu. dañ koy mat rek. li ñuy dégg âge te mariage amul âge. te amul age oui. Mhm. yow la nga jàpp ni mariage du âge quoi. du âge mhm. mais tamit dinañ ko mën. dinañ ko mën. parce que parce que tey jii su fekkee dañuy dinañ ko mhm. par exemple kooku noonu. gars yi parfois suñu nee dinañ ko mën mooy ñoo ngi toog di xaar moom mu am këru boppam. pas que muy habitué ses. ses parents. wala bok ñu ngi xaar mu am auto wala ñu ngi xaar mu am kër pas du tout mhm. dinañ ko mën nak mhm. à condition ko tay ci mom mi kat dina mën tay ci lolu nga xamanteni dina soutenir soxna deug la dina soutenir soxna mu wax benn point bu am solo d'après ñi fi xam ne yeneen fi point yi dana gëna bari sama copain moom xam naa ne te mu ne ma sama tur mais waxuma sa tur waxuma bu <laughs> la neexee nga wax sa tur mais waxuma waaw man DJ laa lay woowee parce que sama DJ nga mhm. mais li am solo mooy dañ koy ñàkk wala dañ koy mën te yow góor nga yaa ngi fas yéene dugg ci làmb bi. Mm-hmm. waaw thème bi nga xam ne moom ngeen développé. Mm-hmm. doon na bu nga xam ne ñun ñëpp war nañ ci mën a bokk. waaw bien sûr féetewoo ko. waaw ndaxte buñ nee buñ nee mariage la. Mm-hmm. defe naa ne góor ak jigéen la. nekkul lu nga xam ne góor la wala jigéen ku ne am nga ci say responsabilité. te man nag man fi may gën a appuyer mooy maanaam jabar dañ koy mat. man mat mat laay wax man. yow mat wax. mat dañ koy mat. dañ koy mat ndaxte fii di gis ñu nga xam ne. lo amna lo xamne boko mënul dañ la koy mënal mhm. ki nga xamne manam da nga da nga ko mat mhm. nga ñëw and ak mom mhm. parfois mën nga tomber ku nga xamne mom mën nako mom moom mën na la tek ci sur la bonne voie wax lay expliquer la ñaata yoon nga fay gis mariage bu nga xamne biñ kay biñ kay commencer dañ na dañ na ki mënu ko ki mënu ko mais jigéen dina fekk ci nga xamne ci suuf mu yëkkati ko ba ci kaw ba ñuy wax ni nan li manam bett nañu war dal boori yi la même la même chose mais man fofu man lay appuyer man ci mat man da koy mat man da koy mat ndeysaan bi mu foofu lay appui yow da koy mat ku ci nekk say raison ku ci nekk aussi ak li nga xalaatee ni affaire bi noonu lay demee kii mat la moom la wax yow nga ni mën ak mat oh. la tigresse mm-hmm. ni mat sama jigéen aussi ni li mat bi yow yow yow man bi la yow man yow man bi mat bi moom dama ne pas du tout pas du tout ba pare ak kii lu mu wax dama ci ànd ak ça va lu tax nga ko jam baaraam nii. waaw waaw li ma la ko teg ko bëgg a laaj. mais laaj ko ko. yow dafa foo man ko argumenté man xëy na développement bi des na. man si samay biir boo dégloo man wax naa la. sa waay ku la jam da nga sa ko affaire bi man d' accord naa man bi man je suis pas d' accord ci zone bi. waaw mat bi laa koy wax man ndaxte am na nit ki dama jàpp ne. demee ba man man bi fi ñu ko teg mooy maanaam rek kii am na xaalis kii am na nit dina ko mën bi am lépp mais euh, ci nu nu koy yore te nu ñu koy yoree muy mag bi nit ki da am capacité bi xam ni ñu yar nga xam ni kii ñi ñi ngi ko téye loolu lépp ci mat la mais bu fekkee da nga am mooy xamoon na naka nga koy yoree loolu loolu maanaam matadi la man foofu laa ko jàpp matadi la matadi la yow fan jabar ndax boo jëmee nit baaraam tamit ni que li nga wax du noonu tamit war ngaa leer tamit yow da ngaa tàmm jëm nit baaraam te doo ko leer waxal lu leer gis mhm. ah, nga dafa jabar gis koo xam ne ma gëm jëmm mm-hmm. am ay trente trente cinq bu mm-hmm. yor jabar bi du ko mën a yor di nga gis xale bu ndaw mm-hmm. takku jabar ma yor ko lépp rek si am jom la mais boo nee jabar dañ koy mat ah. déedéet jabar dañ koy mën jabar xel moo koy de moo ko yor ba pare jabar yàlla moo ko yor avant tout mais boo nee jabar dañ koy mat ku la fi gën a mag moo la. gën gën respecté wul jabar. daa tigres mi ku koy dagg ku koy dagg dégg li muy wax. moom tey tamit moom daa mel daa kii bi. n'est-ce pas du da woon ne dañ koy lan man dañ koy man mat ko pas mais tamit daa mel ne da ngaa dal yow tey jii doon nga soutenir. déedéet man dama ne jabar dañ koy man dañ koy man waaw jabar dañ koy man dañ koy man waaw loolu la am. Ah, mais boo ko mënee boo ko mënee laa tigres tamatoo ko. est-ce que du am problème déggoo déggoo dama ne xale bu ndaw. Hmm. da ngay gis ku am vingt vingt cinq ans bu hmm. mat jabar dañ koy mat boobu moo tegul fenn parce que di nga a yor. Hmm. mi ngi la man daal da ngay gis par exemple dañ dañ xale bu ndaw nga xam ne mooy muy dox nii il a tous les moyens nécessaires. pour que pour que mais est boo ko joxee soxna dina ko nan la ko yoy xala bu ndaw bi nga xamne manam maanaam mënul kii moom am na moyen yi instant bi lu ko soxla laaj man nako ko mais est ce que man na yoré yoré yoré yoré est ce que ko wax sur le plan psychologique mais lepp mat bi ak man bi lepp ci lepp ci bir la lepp ci bir man lepp dama ko mais mais je pense que ni amna fondement quoi lan moy fondement bi parce que sey amna fondement pour nit war mëna tak amna takk am na lu tax mu war a mën parce que am xaliss aussi taxul a war mëna mën a mën a war kon am ñu fi am xaliss te mënu yor ay jabar amna ñu xamni ko ci nek nañ fi yor ñu dara te yor jabar mais kon lan mooy problème bi ba ñi am xaalis ñëw ba dëgg dëgg dëgg mënuñoo yor seen i loolu mooy li ma mooy li ma mooy li ma wax sànq dama ni maanaam ci base bi la. Ah. da am na nu ñu lay yore maanaam dañ dañ lay éduquer teg la si nii nii la ñuy yoree yoree kër. Mm-hmm. maanaam nga xam ko mm-hmm. mais. pas maanaam ci ci ci ci côté. Euh, mën nañ laa yore ne la ni ngay yoree kër te doo ko jëfee. d' accord mais kooku daf ko matul. mais li nga doon boo ko boo ko matee ñu yar la ci nga xam ko xam ne lii mooy akam mat bi man dama fi ma ko jàpp mooy nga xam ki nga xam ne moom moom nga yor ndaxte boo boo ko mën nit ki boo ko yoree rek dafa am loo moom nga ko moom nga ko moom nga ko yoree mhm. xam da mais dafa am loo ko yoree mhm. mais loo loolu noonu fekkee xamoon nag nga ko yoree mhm. yaru bi la si mënoon ko bu boobaa kooku day tumuranke nit dina yor bu bëri ci biir këram mais xamoon naka la koy téye man foofu laay la la la la. kon problème aussi dafa am ñoo xam ne yor nañu jabar mi ko téye. Mm-hmm. ko kon euh, dama dégg benn waay ñoo na fi ñuy waxtaan émission mu am solo lu am nee jigéen ñi sax matatuñu lu tax matatuñu nee na dañuy bàyyi ba jour bi ñuy sëyi mm-hmm. ñu jàkkaarloog bunt bi ñu war a sëyi mm-hmm. ci 15 minutes ñu bëgg koo jàngal sëy ni ko boo demee na muñ boo demee na nga def nii boo demee na nga def nii est-ce que loolu waruñu woon commencé ci ab ci basage bi ba mu nekkee xale di ko tàggat soxna si. ci yar bi tamit loolu nga wax dëgg la waroon nañu commencé foofu. mais tamit comme ñun au Sénégal nañu nekk chaque jour ñu gis suñu parents yi ñuy sëy. tey jii xale bu jigéen boo jël ni ko dama lay may jëkkër tey xam na tey jii bu demee lan la fay fekk. parce que bu dee souffrance gis na ko. bu dee tey jii bonheur gis na ko ci mariage bu dee tey jii wàllu togg. gis na ko. bu dee passé gis na ko fóot def na ko seen kër parce que au Sénégal am na ñu nga xamante ne xëy na boobu du ñu togg mais la majorité des ku nga xamante ne mariéegul mm-hmm. boo ko joxee boo ko taajaloon mbiru kër tey jii jox ko mu defal la ko mm-hmm. parce que tey jii ñu ñoo ngi jàng mais teewul kër bu ñu fa yeewoo suba dañuy def lépp lu ñu war a def doog a jàng mais mais mais soxna si doog ma ne est-ce liggéeyu kër kese mm-hmm. muy sëy noonu ak yeneen ak yeneen yooyu déggoo li ma la wax parce que ñun tamit ñooy doon gis suñuy parents ñoo ñu doon sëyee xam nga te tamit théâtre sama papa danaan théâtre dina la jàngal dina la yàq lu ñu parce que gis nañ théâtre théâtre yi tamit la bokk na ci li parce que gis nañu euh, théâtre yi ñuy des qui kuy marié xam nga ak situation bi mm-hmm. même dans la société gis nañu kon je pense euh, comme lay kii nu ko xeeti mariage mhm. nan ngay téewee sa kër ak yooyu yëpp nekk mhm. lu nga xamantante ji mhm. day nek ben eh, lu nga xamante c'est étranger daal wala parce que lepp ah, gis nañ ko lepp gis nañ ko lépp gis nañ ko moom ñu comme li wax rek saa su ne ñun solution la ñuy wut mais ba tay jàpp bu exact solution bi mais man li ma bëggoon laaj beneen point bu gën am solo moy que à chaque fois à chaque fois xaalis mi ngi fi ndax Sénégal am na ñu ne gaañee mais am na ñoo xam ne ñoom li ñu ne ñuy gàññi yor ko ñoom aussi ñoom ñoom lañ ñàkkee léegi est-ce que tey population bi ñu toll ndax gis nañ fi ñu am xaalis am xaalis sëy mais demul ñu gis fi suñu ñàkk ñàkk nga sëy ñu gis ku ñàkk am xaalis demul mais kon nan mooy vrai vrai problème essence ci ménage yi ndax léegi nee nañu sëy yi benn taxawatul sëy yi daa benn yàggatul léegi ñu xam ne lan mooy problème bi ndax xale yi koo xam dama bëgg sëy gars yi dañuy dugg pour seet génnaat loolu dañoo dugg pour seey laajte gi des mooy seey bi ñi dañu ñëw pour yëndu si léegi wala pour seey si mais gis naa ni kenn ñëwatul pour seey si dañoo ñëw pour yëndu si. Moussa lépp ci bu xale yu góor yi la. <laughs> waaye yow yow yow nag yow kii yow. déedéet xale yu góor lu ne lépp ñoom la. heureusement benn xale bu gor moo fi toog bu ma bokk bu fekkoon te invité wu ma. déglu ma la kon nga dégg kon nga dégg yow ak ñoom ak ñeneen ak ñeneen. donc yéen ñëpp benn nga teg loolu. xam nga fu ma ko teg non mais xam nga fu ma développé fan nga teg yow gars yi wax sa bët yi boo ko buñ dara ngay xas xale yu góor yi tey dee nga internet daal yekkatul ñoom ñu xew ñu def Moussa xale yu góor yi dañ lay takk ñu jëlee la nag fi ñu la war a jëlee. waaw que jëlee nañ la a jëlee déggoo ma la <laughs> fi ñu war a jëlee. toog nga nga toog sa pooju nday. mais jëlee fi ñu a jëlee na yow nan a waxee. déggoo ma de lan lan mooy mooy jëlee fii ñëpp lañ jëlee ci kër mais nan la fa nan la fa toog sa fekk la nga toog sa pooju nday doxoo waxoo. doxoo ba yaa fa ah <laughs> internet yaa mooy saytaan. te lu ne faa nga kenn du ko jeex. <laughs> waaw waaw xoolal fekk la fi nga toog ñu jël la takk la mm-hmm. wax la wax lu ne mm-hmm. nax la ba takk la mm-hmm. yóbbu la seen kër bi noo yóbbu la seen kër xam nga lu ñu wax ñoom daal la moo leen intéressé ñëw sëy si nga ba pare dañ naan la lekk am na fi naan am na fi kase ah loolu loolu lañ lay wax eh. te lekk ak naan taxul kenn gis eh, rek continuer loolu kese neew fa de am na leen lu fa ne continuer lim lim bi àggale lim bi xoolal àggale lim bi dama ne dañ lay lekk lekk naan ak ak ah, ah. ah. <laughs> <laughs> a ah. ñun xale jigéen ñi ñooy dem di yëri. xam nga bu ñu yëree neexul parce que xam nga lu comme tey jii kenn takk na kenn takk na ñeneen ñi message par exemple hmm. man gis naa ko. Hmm. booy jël nga sama xel booy jël nga sama xel yow xale bu jigéen bi boo dégg loolu xam nga lan ngay wax. fii dul moom di keneen. xam nga fi may waxee. parce que tey jii yaa ngi toll à la fleur de l'âge. Ah ah. ku ne ku ne mu ngi lay bëgg ku ne mu ngi lay bëgg. Mm-hmm. boo demee tey jii boo fa fekkul tey jii bu fekkee yaa ngi doon xalaat vie bu gën a kii. seen kër bu ay waaw kay ay classe. ko fa fekkul rek. waaw yow dëgg la eh, dama ne ndox bu daan ndox bu daan taa. ku góor ki tey jii doo du jub rek xam nga yéen yaa ngi doog a dem boobu wala yàggoo fa noonu. Mm-hmm. yow yaay def say prétexte. Mm-hmm. tey bu ñu waxee nga ne daf ni ma nangam. Mm-hmm. bu ñu nga ma dagg daf ma saaga. bu ñu waxee nga ne tey daf ma ni ma nangam daf ma ni ma nangam. nga am problème ba say famille jàpp ci nga génn xam nga fi ma sa parent du ñu ma a comprendre ne yow mi yow yaa def loolu te li tax nga def loolu mooy ñaata ñu ci mbedd ma dina la wan ni man dama la bëggoon. xam nga ni ma la te yow yaa ngi ci dëkk te ñoom ñu ngi ci laa ci gres kii li mu wax mënoo cee teg leneen may jàng sama waay qui est copain ñëwal sa man moom li li ma wax moom man je suis pas d'accord avec non man yéen ñaar ba ngeen qui tey mos leen a d'accord d'accord moo sa ngeen d'accord ñaar ngeen d'accord man du qui d'accord ak moom waaw xam problème bi lan la le problème en est que cause cause principale ci jigéen ñi xam nga dañ daan wax dañ ñu ni sama joxañ nga baaram jigéen ñi d'accord man ñoom laay joxuñ baaram wax fan la ko teg ndax problème bi ñoom dañ naan dañ naan naan diw sëy si mais léegi lan la wax diw seet na mais bi nga sëy da nga war a